Il ne sert à rien d'être le meilleur si on est le seul à le savoir. yàllaa ko def ci yow tal bu yàlla tal. sànn ca ma teggan nga ko fay. Retrouvez du lundi au jeudi à partir de 11 sur la 2STV. Véritablement, merci beaucoup. Et joyeuse fête de Saint-Valentin. L'amour, c'est beaucoup plus que de l'amour. ce qui est beau avec l'amour, c'est que chaque couple décide de la façon dont il vivra la passion, le désir, l'inter et l'indéterminité. Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la première chaîne de télévision euh, privée du Sénégal. Où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous dis bonjour. Am nañu mbégte bànneex ak contentement euh, pour vous accompagner de 11h à 13h. J'espère quand même que vous allez bien. Alors on est mardi février. J'espère que les amoureux sont installés merveilleusement bien à euh, poursuivre cette émission, mais également ce soir pour vivre l'ambiance avec le King Baba Ngaka Blindé. Nous allons débuter avec lui en attendant le temps de saluer tous ceux qui nous regardent de l'autre côté à l'étranger, en France, Italie, Belgique, Hollande, aux États-Unis. États-Unis yow oh, eh maanaam nga ne foofu ma fay def ma fay def point quoi nga ne États-Unis digg ceeb bi la moom mooy xooñ bi xooñ bi moo koy cof ba pare kon maa ngi nuyu képp koo xam ni yaa ngi ñuy seetaan ca États-Unis am na ñu ci bëri ñi ma naan mais xëcha taay li ngay trois couleurs lan la man leen sañse du ci deux couleurs kese koo gis muy sañse yi la yamale ko ci deux couleurs mënul sañse y a des couleurs yoo xamante ne da nga koy agencé nga dem xool bii ak bii est-ce que mën nañu ànd bu ñu mënul ànd bul ko laal bu ñu mënee ànd nag boo ko solee day daal nice maa ngi am mbégte kontaane képp koo xam ne yaa ngi ni seetaan euh, en Afrique Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire euh, Zimbabwe Cap-Vert Libreville Franceville euh, Gabon waaye itam ñooñu nga xamante ne ñu ngi ni seetaan ca Mauritanie marax ba bikum wani ba bikum Mauritanie asalaamaaleykum and all Gambian people my second family they know full well that I love them and I know maa ngi leen wax kontaan naa bu baax a baax ci yéen nuyu ak euh, képp koo xam ni yaa ngi ni seetaan aussi fii ci Sénégal Jal Diop Sangomar démb gis naa ci ay xale yu jël seen ay far dugal ko ci statut yeneen xale jigéen ñi naan leen seen far yi ñaaw na bàyyi leen loolu waaye ah góor du ñaaw na poos ba dund rek mu am xaalis am am am aslaf lu mu yor ci ci poosam ah yéen xale yu góor yi yéen tamit gisuma benn xale bu góor bu dugal kelam non booy yéen booy booy ngeen yéen du ngeen jël seen gel yi ngeen dugal leen pourquoi vous n'êtes pas fiers de vous en fait man mooy code cloud waaye mais jël leen seen xale yi ngeen dugal leen ci statut xool leen ma man xool leen ngi koy dugal nii eh du seen booy booy xoolal booy bi fi dugalul booyam dina dina dina ko jëflanteeg man de jël leen seen booy ngeen dugal leen nit dooni da nga koo ba pare mu des lu dul 14 février Dans de nombreux pays, les gens fêtent la Saint-Valentin parce que c'est on dit souvent et on le dit ça et c'est la vérité, c'est la fête des amoureux. mais boo bëggee nit ba mu des ba lu dul 14 février d'accord am na ñoo xam ne boo leen waxee non man chaque jour Saint-Valentin la ci on est d'accord mais bu desee lu dul février mais jël leen seen bopp ngeen dugal dugalal tamit sa gel bi nga bëgg ndax depuis plus de 3 mois 2 mois 1 mois 1 an 6 mois 7 mois yéen ngi nekk en couple ne serait-ce koo xam ci SOT bi nga ne la doo ko dugal man laajal ñu ñu yor sama numéro. laaj leen ñu yor sama numéro léegi damaa dugal vite fait nii def leen ni man soyez fidèle mun xamuma lu booy Sénégal yéen geen infidel quoi l'infidélité li c'est que waali nag moo indi problème bi yëpp quoi parce que waali sa wooy boobu nga fi wooye naan l'infidélité ne se pardonne pas ça se comprend fallait pas chanter ça c'est parce que euh, loolu mooy tax tey jeunesse bi yëpp boo yëpp ñu ci bëri ay dañuy infidèle doylu wuñu boo amee sa benn gel bu mool gel boo xamante ni yow leer na ne la kii jigéen la bëgg na la mais yemal ci moom mais yemal ci moom pour pourquoi aller chercher pour pourquoi dem di xooli keneen ak leneen booy lan moo tax mënu leen mel ni man lan moo tax mënu leen mel ni man fidèle yem ci benn gel non Oh, baax na 88 628 14 ou 13 yéen ñi infidèles yëpp dañ leen di génne ci town bi dañ di génne ci dëkk bi comme ni ko Père Tall Ngol wax waxoon ku infidèle dañ lay taal <laughs> eh, taal waaye taal dem tëj nga dëkk bi nag waaw ah, sëriñ maa ngi lay ziar bu wér a wér a wér moo fi nekkoon léegi doon leen bégal Père Tall alaaji Ngol Ngol ba ca Ngol Ngol kenn du yow mbokkum yaay patriote yi ci réew mi patriote yi nag nee na dina la defal kañat loolu fàtte naa la ko wax dëgg naa ñu ne dina la defal kañot yëkkati ay koppar gu bari yëkkati ko teg ci sa loxo man leen ah loolu bu ngeen ko defee def lu rafet kon nag per yow doxalal rek ba kenn laal la ku la laal rek jëflante ak man alors gars yi ziaraat naa leen bu baax a baax a baax ah jox naa ñëpp seen wàccuwaay tey nag dama am ñaari surprise tey ci première partie bi dama invité ki nga xamante ni c'est l'expert cest à expert en amour boo koy jàngale wala di ko gis fii ci Sénégal ci biir ci mbëggeel ah, di di di eh, eh, ñaari couple naka lañu ñu war a eh, mel lan moo koy suuxat lan mooy téye sëy xale bu jigéen jongeem fan la war a yem dëgër jongeem fan la war a yem yooyu yëpp vous aurez l'occasion de le savoir copain nan lañ koy téye ba copain bi du dem di di di di doxaani keneen yooyu yëpp tey dama leen koy tënkal ci deuxième parti bi avant d'accueillir tamit la révélation de la euh, de l'année 2021 pour vous dire que aujourd'hui j'ai mélangé deux parties pour la fête de Saint-Valentin du ma waxagum tur bi nag parce que déjà vous la connaissez et que mi ngi toj euh, les réseaux mi ngi toj la télé même moo tax xam naa bu tay weesoo ci émission bi dama koy daal di recruter mu ñëw 11 13 nañ ko bàyyi ci émission ngoon gi ñu koy teg parce que foofu du place am fi mooy place am waaw ah, ay Sophia ak ay ay Khadija ah non non ay Sofia ay Khadija nga ñëw fii fii la war a ñëw ay am na ñoo ay Tafa Touré foofu boo koo fa fii ngay ñëw ñëwal fii ñu gérer man a yow dañuy jàkkaarloo face to face pêle-mêle ma jox nga may jox fee xool da ngay jox Khadija jox Khadija euh, euh, euh, Sofia fii ngay ñëw ñu gérer deviner c'est qui on aura l'occasion de parler euh, kon préparez-vous davantage ndax loolu lépp euh, dina mën a am ma nuyuwaat leen ziarawaat leen nuyu équipe technique bi yëpp rapidement ñu dem sama séance d'étirement et juste après on va mettre des chansons d'amour pour vous décompresser et vous donner le maximum de plaisir let's go le yo animation xale xëcc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

ku fi si si ne ko mbële amoo kattan da nga tële jàllal na le MC du gàtt sama lépp ngi naat yow reewande cat loo fi indi ma taal gàttuma njoolu ma taayu Dubaay xale yi songu ma kaano Dubaay ey eh, tus nag munoo si man dara déedéet ey eh, tus nag nangul ndogal jëlal défaite animation xale xëcha xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ Kheucha bëri doole mel ni DJ Kheucha fi koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mana waaw waaw xale Kheucha xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ Kheucha bëri doole mel ni DJ Kheucha merci beaucoup son altesse royale un garçon exceptionnel euh, booy son nag sa mi ngi bëgg de non sérieusement nag foog ma changé ko son altesse da nga wayal boo may wayal yow tamit wayalaat ma oh voilà ah ñaaw de alors s'il vous plaît le numéro 88 628 14 ou 13 ou bien sur le 33 841 23 34 moom expliquez-moi ay anecdote yi ngeen dund waaye s'il vous plaît seen ay mbëggeel parce que am na ci ñoo xam ne tey dañu bëgg sentir loo bi ñuy wax euh, ci li nga xam ne moom moo di Saint-Valentin man nag sañseeguma sañseeguma sañse Saint-Valentin j'attends ce soir avec Ngaaka Blindé euh, mu nar a jàkkaarloog Fatel wax nu ñoom tam seen début fan la ñu xamante naka lañ def ba xamante kan moo leen maa ngi wax sax sama question yi balaa ñu koy xam ñoom donc dinañ ci waxtaan ci lu bari ci seen ba gel ñoom ñaar et c'est couple boo xamante ni tant que nekk ñoom munoo xam li ñuy dund man j'ai eu à leur mais dangay dem seen kër gis leen ni ñuy dundee tu fier en fait wallahi azim man il font partie de mes références man nee naa bu moo takkee jabar fàtte la gën a neex kaay ñu neex te ngaa ko blende rek moom ci biir kër gi ñoom ñaar non comme ay xaj ak undu non pas xaj ak undu parce que ak undu duñ euh, comme euh, comment est-ce en tout cas comme frères et sœurs quoi ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont tellement cool tellement mignons et j'adore ça en réalité kon nag on aura l'occasion ce soir d'en parler incha allah ak ñoom euh, i leen ma ligne bi s'il vous plaît tey la Saint-Valentin euh, ku nekk rek la nga bëgg ci sa góor xam ko mu nekk ci sa xol yaatal ko sénégalais yi xam ko li la neex ci moom qualité euh, yan la bu fekkee ni itam seen xameel yéen ñaar dafa am fu mu jaar anecdote yoo xam ni vraiment ça peut faire rire bu ngeen nu ko mënee nettali am jël ba noppi ci 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. allo. allo bonjour. c'est ça. waaw. na nga maa ngi si jàmm. namu naa la. maa la raw kokan la. mala man jaara. soxna jaara yow moom maay sa valentin. waaw. sama doom yëpp maay seen valentin bu leen farantu de. waaw. Ah, man ngeen nop yéen man ngeen bëgg man maay maay di takk dégg nga. naka sa Saint-Valentin. ah Cheikh Malanteer mi ngi nii rek. ah yaa ngi cool an sama kado waaye sa cadeau. yow jox ma cadeau pare ba mu joxee cadeau pare ba jox la sa cadeau. waaw léegi man fan laa lay yónnee sama kado ah. fan laa lay yónnee cadeau bi. Thiès. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nitu Thiès nga de. waaw. ah waaw baax na amul problème danaa la fa jox sa kado dégg nga. waaw incha allah. kontaan naa ah. sa ah? waa d'accord bul coupé dina la ko jox ci suuf merci soxna Diarra dégg nga. waaw dégg nga. alors Grégoire euh, wane nga sa bopp parce que ba nga demee Maroc laa xam ne nag am na koo bëgg waaw kon nag gelu Grégoire yi nga xam ne yéen a ngi may seetaan nekkoon Sénégal jàppoon ni Grégoire da leen bëgg xam leen ni war na leen ma nga ca Maroc tëdd ca sedd ba nekk ka mu bëgg du ma leen fenn dama leen di wax la réalité donc moom actuellement ma nga Maroc di vacances ak ki mu bëgg lii nag mooy mbëggeel gëré am nga sa fulla def nga lii la war te nit nag boo defee lii la war da ngay am lii la war kon nag foofu nga ne ca Maroc maa ngi lay souhaiter bonne fête yal na yàlla jàmmal la te nag boo fi ñëw na nga nu takkal jabar Grégoire ndaama nga mee takkal takkala ah. ok na keneen ñëw ci 88 628 14 ou 13 le temps ñu leen di prépa euh, présenter li nga xamante ni tey euh, moom moo di seen programme du jour on est mardi comme tous les mardis euh, xam ngeen ni dañ leen di dugal ci li nga xam ni moom moo di live yi leen tàmmal waaye nag tey on va débuter saa ak benn benn benn benn benn boy bu doy waar donc Grégoire laa bëgg kii naan ma Grégoire man laa bëgg nag sama yoon da cee dama da nga ko koy wax bu fekkee ni yow Grégoire nga bëgg da ko koy wax loolu sama yoon new ci voilà euh, 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum kooku dem na mën na ñëwaat ci 88 628 14 ou 13 on va débuter Alain euh, donc ak euh, de la bonne musique euh, nañu bàyyi euh, nuyu naa ñëpp ah tey moom du ma nuyoo ay ay ay karabalik si loo leen ne xam naa ci li ngeen ne ci li ngeen ne mooy seen xol sedd na parce que tey on va parler que d'amour euh, seen xol sedd na parce que nit ku nekk nag ak mu bëgg bëggeel yamul rek ci ñaar ñiy génn dégg ngeen. sa yaay da nga koy bëgg sa frère da nga koy bëgg sa papa da nga koy bëgg donc euh, Saint Valentin ñëpp ko war a fêter ñëpp ñoo war a fêter Saint Valentin nit ki nga gën a bëgg rek yëkkatil aw cadeau nga jox ko ko mu duun mu tuut ak lu mu mën a doon geste bi c'est ce qui est euh, important donc yëkkati leen dara lu tuuti ngeen yëkkati ko jox ko ki ngeen bëgg dégg ngeen parce que c'est très important ah, maman Rama du dëgg ah maman Rama loolu du dëgg démb yëkkati moom man sama cadeau bu rëy joxe ko ah ngi noonu. ana maam booy ma ko ziaral ma ko bu baax a baax a baax maa ngi koy ziar euh, on va débuter avec euh, euh, le le prince d'aujourd'hui le king Baba Ngaka Blindé pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous regardent restez confortablement et ñu jël ki ne ci ba pare 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. maa ngi ziar sister c'est comment. Mariama. soxna Mariama loo sant. Coly. Coly. waaw. loo bokk ak Ferdinand Coly. sama tonton la. sa nijaay la. waa yaa am nijaayu gaynde nijaay ju xarañ. waaw. nijaay joo xamante ni lu mu zéewul woon ci latéral baaxul. waa waaw xasaa. barki maam Serap Fall naka nga def nag. maa ngi fi. alors euh, Coly wuy ma yow célibataire nga wala marié. non man xale laa. xale nga. waaw. Ah, waaw kon xaaral dégg nga Saint-Valentin du pour xale. waaw ok. pour mag ñi la dégg waaw xasaa man dama saan bëgg xasaa damay seetaan sa émission rek kenn du yéen ci man gërëm naa la raw dégg nga billaay sa émission bi dafa neex yéen ko moom def ma sa valentin waaw merci kontaan naa merci beaucoup merci allez merci même la boisson Uber moom day Saint-Valentin parce que Uber rouge noir la laal donc rouge noir du pour beaucoup de personnes moom mooy couleur euh, bi nga xamante ni moom la sénégalais yëpp di sol pour fêter seen Saint-Valentin le monde entier même dañ naan rouge noir la euh, donc moom mooy couleur bi adéquat ak Saint-Valentin c'est pourquoi bu Saint-Valentin jege see da ngay gis xale yi di jënd euh, body bu noir jean bu bëla wala jean bu jean bu rouge.

da ngeen may woo nii rek yéen daal man maay seen valente. xasaar man yow laa nopp yow laa bëgg dañ maa ah. yow laa nopp dañ maa trahir. <laughs> man nga nopp. waaw yow laa nopp. ah <laughs> mi ngi ñaaw de. ñaawul de xasaar man dama laa nopp. ah. dëggantaan Njaay. <laughs> wooy en direct nga ne ma dama laa nopp xale yi am nañ fit nag. jërëjëf dégg maa la raw alors rapidement on y va avec ce garçon Ngaaka Blindé écoutez cette euh, ces paroles euh, il sera là ce soir pour nous donner aussi de la bonne musique mais en attendant regardez ce plateau euh, c'était vous et nous mais xoolal affaire bu naay sa ngi alors merci beaucoup euh, ça manque beaucoup ah Alain essaie de joindre Grégoire s'il te plaît je t'envoie un message sur euh, pour ñu mën ko continuer s'il vous plaît euh, le King Baba Ngaka Blindé sera parmi nous ce soir inchallah pour fêter l'amour avec nous alors maa ngi leen doon wax démb bu fekkee ni vous voulez assister à cet événement c'est pas c'est pas c'est du lu ndaw donc mën ngeen woote ci 78 463 34 15 78 463 34 15 bu ko defee yéen aussi ngeen mën a participer ci loolu ndaxte seen yëf la te lépp ñëpp moom lu ne ku ne ngi ci képp kuy dund mbëggeel rek bëgg sa waay di ko tiitaroo ak euh, euh, koo xam ni euh, dafa nekk ci sa xol donc tey àndal ak moom ngeen def bras dessus bras ngeen woote ci ou bien laissez-lui un message et après incha allah il va vous rappeler ngeen mën a assister mën ak ñun li nga xam ni moom moo di ambiance bi war a am tey toujours ci 88 628 mi ci ligne bi bonjour salaamaaleykum. Allô Ilo, elle Merci. Veuillez nous rappeler sur euh, les 88 628 14 ou 13. si au Sénégal, il n'y a pas de, euh, des gens qui, Si vous êtes en couple, wala ngeen nekk di sëy amee ah, mais ayez l'habitude de parler pour que ñenn ñi nga xam ni duggaguñ ci sëy ñoom tam ñu mën a understand mën a am ci lu bare bare bare bari euh, ci yi ni dafa am solo a ah. donc rapidement mën ngeen ñëwaat ci 88 628 14 ou on y va avec la Lyon Titi gën gi dëkk live bu doy waar bu neex on va parler d'amour avec cette chanson la Lyon Titi. Bravo et félicitations à cette diva de la musique africaine Titi elle répond euh, xam naa da ngeen di xëcaat na ko bëgg Titi la c'est parce que elle chante elle chante man xaw ma sax naka laa ko mën a kiiwee quoi yéen tiri daa mën a way de sa ta ta ta man ma boo bàyyiwul yooyu noonu noonu loolu loolu effet yooyu ngay def noonu non cordon vocal bu baaxul mun ko def foog sa cordon vocal baax oui voilà yooyu genre affaire yooyu noonu oh Grégoire 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allô allô oui bonjour bonjour bonjour ça va tu vas bien ça va yaa ngi si jàmm c'est comment. Aram. Aram maa ngi lay nuyu. maa ngi ziare. yaa ngi cool Aram. ah cool ma dara yow. lu tax cooloo. dañ maa trompé. eh Aram ku la trompé. <laughs> ah. grand sama far bi moo ma trompé. nu mu la trompé Aram loolu de moom yow Aram nan nga am bay farantu yow. quoi 18 ans. 18 waa waaw. mais yow aram xanaa meloo ni nga war a mel ba ku góor ki di la trompé. non mel naa ne moom mais xanaa xale góor yi rek mooy loolu. dañ la dañu génne yow ba neex lañ bàyyi la dem jëndee la keneen. noonu la ñuy def te xoolal bu ñu njëkkee ñëw ci yow di la wax di la wax wax yoo xam ni aram yow xam nga xale góor yi ñuy def. man kay dama leen a xam bu baax mais moom. man gi dinaa gis koo xamante ni ñi ci baax barewul ñi ci baax barewul man la ak ñenn rek barewuñ <laughs> mais léegi yow loo noo noo nekkee ni si Saint-Valentin bi nga yëg ni dala trompé wala. moom daf maa trompé avant Saint-Valentin ah. bi. damaa trompé avant Saint-Valentin yow naka nga découvrir ni kii dalay trompé ci téléphone am wala da nga ko bett muy wax ak jigéen wala qu'est-ce qui se parce que moom sama xarit la dem génn la. non non non non non waaju du def lii dërët dërët aram aram kii bu mu def lii waay. <laughs> sa xarit. bilaay sama xarit dana dem génn. mais sa xarit boobu elle n'est pas sincère de. ah. ah gis nga de mais dina gis keneen koo xamante moo ko gën daal góor ñu bari nañ. <laughs> mais sa xarit boobu alam naka la mën a def lii. ah xam nga rek fi ne xarit dañaa xarit amatul sax. xarit amatul. loo ko koy présenté yow it ak ñuy amante numéro. ah gis nga ne wóolu ko rek moo tax ma jox ko suma numéro mais su ma xamoon nii la may def dootu dootu ma ko jox. te ñoom ñaar ñi ngi dund nii instant yi. waaw parce que dama kaa dem expliquer mu ne ma loolu amul te loolu am na. ah duñ la ko gëmloo non loolu duñ la ko mës a gëmloo. oh yaa ngi dund lu metti waay. ba jeexoo. <laughs> non. yaa ngi lekk. maa ngi lekk bu baax ma loolu. dérangé wu ma sax. ah. loolu devancé wul ma de. ndekki nga bu baax. <laughs> xanaa boo ma rek xanaa xamul xanaa moo gën a garaaw si àddina. maa ngi ndekki bu baax kay man jàpp ma ko sax jàppul ma ko dara parce que rek xam nga xale góor yi moom mooy loolu. loolu mooy loolu jëlal sa temps nag balaa ngay duggaat ci keneen dégg nga. jëlal sa temps bu baax nga xool. parce que ñoom ñi mm. seen jikko yi baaxul quoi ñoom du ñu doylu quoi booy yi. góor kay ñëpp la. déet bul ni ñëpp la yëtut am na exception maa ngi nii ah. ah kon maa ngi jégal. waaw da nga naan ñenn ñu mel ni xësa moom ñaanal yàlla mel am ñu mel ni man du wa waaw man de loolu laay war sax bu ma ko mënee am. ah. ma loolu laay de su ma ko mënee am. ah kon aram yow da ngaa la xanaa. bien sûr bëgg naa. ah. oui bëgg naa kay. <laughs> arab waay arab arab loo sant man Touré Touré man ni Mori loo bokk ak Tafa Touré ah <laughs> non bokkuñ dara ndeysaan yee daje mm-hmm. jërëjëf aram aram nag xam naa déception bi dafa la dafa métti sa xol yow ne nii remplaçant ngay wudda ah yow de laa bëgg remplacer eh, aram aram bugguma la dugal ci ay jéyee ak ay problème parce que ci li nga jógee nii il te faut du temps xoolal jéemal nga xool rek xam ne ma la est-ce que dee xool ne ne yow rek laa bëgg bu dee mën naa nekk arab xam nga loolu la wax yow ma wax ko nangu naa lu tax ma naan ka nangu na ah <laughs> maa koy wax nangu naa fii mu gënaat beneen déception aram nangu ma de no danga nangu nag parce que yow yow yow yaa yow dama laa bëgg. aram yow fi nga commencé fi nga yegg si garaaw na de. ah dama la ko bëgg na wax rek par yàlla def ñu daje ma oo la. man moom sama xaw xool bi nii am na ko ma ko jox ba pare dama lay bañ a. torom loolu loolu garaawul man dinaa ko seet bu loolu mën ngaa moom génna man saa dëkk paa. aram nag barki Serigne Touba yaa am fit aram pare nga pour nekk sama ñaareel lii. oui nangu naa kay. <laughs> ah xew naa nag. sa të të të të të mañ lañ nopp ñoom la mu ñu leen waaw ok léegi am problème aram yow loolu dinañ si waxtaan dégg loolu da nga may wax waaw ba pare ma doog mën a ah, coupé parce que soo ma waxul waa du mag nekk <laughs> aram salaamaaleykum maaleykum salaam ma naa la waaw damay réfléchir xaa duma réfléchir non man daal man dama bëgg tey sama xol féex am ma wax ma waaw rek garaawul waaye bu ma nee la waaw te dëgguwul ci man nag mais après dinañ déggoo yow arab da nga bëgg ubbi tey jàng tey. oui. <laughs> waaye Aram Touré waaye Aram Touré xam nga la baadu Aram bi fi nekkoon sax. <laughs> wuy ma Aram. des si code rek yow dégg nga waa léegi nangu naa nangu naa am problème Aram parce que yow xam naa bu ma newul la nangu naa doo coupé dégg nangu naa maa nangu nii. nii génn ma la yow dégg tàmbale nañ foo dëkk. man maa ngi dëkk Grand Yoff. ngoon naa la indil sa kado incha allah. waaw ah, maa lay xaar na aram. ok bisu ciao. jërë bisu waaw ok bisu bisu bisu. bisu je t'aime. <laughs> yaa ngi jàng ba pare di def cours mat cours bu sax je t'aime jërëjëf waaw aram demal nag ay bu fi ga gaa nekkoon dootoo ko dolli de. laa ilaha illallah yow yow lii la sauvé mooy gërëw. yi ak kii sëñ Tuubaa dama nii. laa ilaha illallah ay man lii fu ñu ko waxee mama maane jërëjëf merci beaucoup Aram euh, donc may naa la Momo Dia bi euh, love to love bi may naa ko sama chéri boobu di Aram euh, Touré Mané Mori boo ko feccul nag baalu ma la ko jugal fecc morceau bi ndax yow laa ko may Aram ture doxalal ñu dem ay ci alan let's go chanson c'est la part de Aram Touré Touré man ni Mori sama chéri koko boobu nga xam ne moo nangu nekk sama ñaareel kon nag maa ngi la koy may may naa la ko chéri xam naa ni fecc nga ba sa xol sedd waaw am na nag ñu naan ma Grégoire la yabal moo la yónni mais góoma loolu ndax yow boo ma trompé yow ay Aram boo ma trompé dina ñaaw de baax na nag jërëjëf Aram Touré Mandi Mori ñi ngi koy gërëm di ko ziar moom tam bu baax a baax a baax euh, di ko wax ni en tout cas kontaan nañu ci moom bu baax monsieur Grégoire depuis Maroc ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Maroc yëpp ah di la wax ni euh, mais Guéré waa Maroc mën nañu wat de wala yow lii fi nga ko watoo wala wala wala fale wala Maroc <laughs> tey Guéré ay ca merci beaucoup Alain on marque juste une pause et juste après ñu présenter leen deuxième partie bi ndax ndaanaan lañ fi dajal ñaari ndaanaan yoo xam ne kii dina dinañu wax ci mbëggeel jigéen naka la war a toogee ci biir néegu sëyam euh, euh, bu fekkee ni itam danga nekk xale comme aram li ko dal euh, am déception amoureuse ndaxte nag li nga xamante ni dal na aram dal na ku ne waaw ndaxte nit ñi dañuy jekk saay lañ lay wax ca njëlbeen ba ak la ñuy continuer du bokk surtout góor. góor mooy ki nga xamante ni buy ñëw day mel ni kuy tabax kër waaye bu tabaxee ba pare moom pour mu dëkk mooy problème bi dëkk gi moom mooy seen problème bàyyi leen habillage ñoom cest à góor daal góor góor on aura l'occasion d'en parler tout de suite da góor yi tey foofu ma dal seen kaw sama sama mbokk yi booy infidèles yi nag laay waxal yéen tey foofu ma dal seen kaw rapidement on marque une pause et on après la page pub si c'est bon alors à Mangok Lati Diop dégg mbaay jot Demba dégg Koura Fall ak dégg Demba Cissé dégg mbaay Wally Balago sera de l'autre côté Saly inchallah rabbi loolu nga xamante ni euh, Malaw d'or ñoo koy amal ca hôtel Amaralis bu Saly ngeen ñëpp yëg ngeen ko ndax a travers 11-13 réew mi xam nañu ko kon nag na fa ñëpp daje ak le leader Wally Balago Seck la xam daan foofu le euh, ca Saly dana neex dana yaatu te dana yàgg la meilleure des boissons énergisantes qui nous accompagne c'est toujours Uber Uber moo ni accompagné même euh, bi ñu amal nga ka blindé donc Uber yamul ci 11 13 yamul ci wake up ma nga ba ca soirée ba tey euh, pour wan leen ni Uber engagé wu na euh, ak euh, seen diggante bi ngeen am ak man yéen a tax nag Uber jël ma bëggal ma boppam bëgg kër gi bëgg laa desi bi ba mu tax ni tey dinañu accompagner ci li nga xamante ni moom moo di spécial Saint Valentin bi ñu nar a amal ak nga ka blindé ku fi ñëw di nga naan Uber ku fi ñëw ku ne dinaa la jox Uber nga naan ko mu doon li nga xamante ni moom mooy sa yóbbal ak la ñu lay jox ci cadeau kon nag ñi war a ñëw ñëpp woote leen ci 78 18 433 34 15 donc bu ko defee nag ngeen mën a dugg mën a ñëw euh, participer ci euh, li ni mel donc moo ja euh, bu fekk eh maa ngi wax tur bi lu ma waxaat tur bi tur bi dama koy bàyyi noonu moom day daal di ñëw installé wu Modja bu fekkee ni baax na nga ñëw ànd ak ñun Mbarak mën nga ko joxaale le micro. parce que nag tey je vais parler que d'amour euh, ak moom on va parler euh, ci li nga xam ne moom di situation bi xale yi di euh, dund ci mbëggeel naka la jigéen war a def góor naka lay toogee on aura l'occasion de découvrir beaucoup de choses secret bi jigéen war a am ba tey jëkkëram lan la secret bi jigéen war a am ba te copain am wala copain bi itam man bu dee may góor naka laa war a def ba mën a atteindre sama objectif ci ku jigéen ki tey bari na ci waxtaan wu war a yaatu yéen ñam yéen itam ci ngeen bokk parce que mën ngeen ci woote 88 628 14 ou 13 bu ko defee ngeen mën a participer yéen itam ndaxte lépp yi te lu ne ku ne ngi ci rapidement bu fekkee ni baax na ci yow s'il te plaît en attendant je vous rappelle que tey à partir de 22 mën ngeen ko suivre waaye ñi war a ñëw war ngeen ñëw à 20h30 21h mu fekk leen fi ngeen installé wu merveilleusement bien ànd ki ngeen bëgg da ciy dàq ndaxte bu ñuy woy mbëggeel bi da koy seq <coughs> su ma ki ngay àndal yow bu dee góor nga bu dee ku jigéen ki la na doon faram wala jëkkëram ndax am na ay surprise yu doy waar yu ci nar a am ay surprise yu doy waar ay artistes yu doy waar yu mag a mag dinañ ñëwaale ci bile euh, euh, tey soirée bi nga xam ne fii lañ koy amalee ci la 2STV bi euh, kon nag ku ci woote rek ci numéro boobu nga xam ne joxe naa ko di nga mën a bokk ñëw fetandoo ak man bu ko defee ñu photo bu ko defee ñu vidéo euh, ensemble euh, fêtons l'amour ce soir à travers la première chaîne euh, de télévision privée du Sénégal la bande annonce s'il te plaît Alain may ma band annonce su Saint-Valentin bi war am tey ñu xool ko man ak Ngaaka Blindé s'il te plaît et juste après peut-être on aura l'occasion de découvrir ki nga xam ne moo di Modja en attendant ñu jël ki ne ci ligne bi yow Marème yow ku ma yab nga yow Marème 88 18 14 ou 13 Marème moo ko man salaamaaleykum allo allo lay dégg. waaw ça va noo def. ça toi. ça va alhamdulilah. très bien yi tey alors euh, te plaît alors. may juste la bande annonce et juste après on aura euh, euh, suñu invité et pour euh, mën a may sénégalais yi ñu dund mbëggeel tuuti bande annonce bi nga xam ni amaloon nañ ko ndaxte tey ce soir ci la fête bu mag boobu ñu nar a amal pour fêter l'amour avec le King Baba le maestro Ngaaka Blindé alors si c'est bon on peut regarder l'image vas-y let's go s'il te plaît voilà. I just wanna know 2STV loolu indil waaye ah. loxo la ñu doon. mais biir. mbiri du la jàppe miiri boo jàppe miiri noo koy def ee eh, nga naan ko beleese ma wu yaay na beleese ma nga naan ko loof yu tuu nga naan ko loof yu tuu nga naan ko loof yu tuu nga naan ko miiri ça commence bien Safa Moose. Ah. Euh, man ak yow du woon fii man ak yow ca DTV la ba ma lay xam xamuma Grégoire musoo ma def lu ñaaw musoo ma wax lu ñaaw kon nag du des du dul Saint-Valentin. nga jël ay image di ko dugal naan maag mairie Ndiaye dañ nekk ale nag tey nga ma mës a tooñ mosoo ma tooñ mais nag lii bu la ko Grégoire defee sax bu ma ko def parce que maag mairie Ndiaye génnuñu nobante wuñu ki may nobante gërëm bu fekkee moom ngeen bëgg xam dina leen ump seen laaxu ngénte yéen ñaar ñëpp ndax ale am nga lu ma metti tey nag te yow mën a yow dinañ am lu ñu réglé si kanam merci beaucoup alors amis chers téléspectateurs de euh, daal di nag nuyu koo xamante ni euh, dafa spécial ci Sénégal ndaxte nag moom wax dëgg yàlla li gars yi di xii na ak di ko nëbb moom mooy ki koy wax te man yooyu daf may neex man man dama bëgg muy wax daal man barke Sëriñ Tuubaa mbay Musa Jama Kumba Seen mbay goli Fatim maa joojo borom ngaay njire mbay demba xoy mbay dem laat ci mbay demba yaa booy mbay demba yow bu ma la taggalee say maam foo jaar kontaan maa ngi lay nuyu moo jaar noo def maa ngi lay ziar Tacha. yëkkatil micro bi. baax a baax a baax di la ziar. Mhm. di kontaan tam ci teew ma teew fii ci invité bi tey. 2STV mhm. ma ñëw sama kër tamit. Mhm. di ziar waa 2STV yëpp rawatina sama taabu jigéen muy Sofia Thiam. Khadija ak Amdi ñi nga xam ñoom laa bokkal plateau bàyyi rek mu tudd leen. non non non bàyyi rek mu tudd leen Tacha. <laughs> jar ko de ay Sofia Thiam ak ay kii <laughs> euh, euh, di ziar ma ma ma maa ne. zeral image bu waay dégg nga alors euh, mënuñu noppi def nga ko léegi nag euh, li nga xamante ni tey euh, moom la ñu war a waxtaanee ku ne xam na ni tey c'est le 14 février spécial Saint-Valentin. Mhm. on va parler que d'amour ndaxte mbëggeel euh, dafa doon loo xam ni dafa spécial ci doomu aadama tey moo ja ku ne xam na la ci Sénégal ci ay rubrique yi nga xamante ni tey day yokk jigéen day yokk taaru jigéen waaye itam day gëmloo jigéen boppam ci wàllu mbëggeel waaye tey buñ la doon wax li nga xam ni moom moo di Saint-Valentin. ñu war ko fete muy spécial bés boo xam ni dañ koy fete képp koo xam ni da ngay bëggante euh, Saint-Valentin yow naka la lay def. Ah, dama ciy kontaan rek ndax xasaa tamit ma jël capitaine boromam la te fu mu la fekk da lay maaj la. dëgg la te xale yi tarkal la gis naa ko ne ñu ngi koy jox àqam. waaw nee naa génération bu bees bi dama leen bëgg. ah dañuy dund mbëggeel. waaw xale yi dañ koy dund de. non dañ koy dund. dañ ko respecté bu wutal ko bis. instant bi leer na ma ñu bari nga xamante ni toogatuñu taxawatuñu. Mm. Mm. bis bi rek lañ jël di ko màggal te nag mbëggeel dafa bokk ci li. mais est-ce war na màggal 14 février. moo nag yedd naa leen. ah waaw. booy dañ koy fete de. nan nan fatu ji. Ah. parce que li ci jig mari yi jigu leen ci. waaw ah, dañuy juum de. Saint-Valentin couple yi ñoo ko moom marié yi. ah kon célibataire moomuñu ko. moomuñu ko parce que nu ko koy dundee dafa ëpp xasaay tam xoola xale bu jigéen bu ndaw. bu xeesal ba weex rek loo ci ay tànkam nii def robam bu noir décolleté ginnaaw gi yëpp sol cappam bu sew ruuj rek war laa seet yaa ngi tooñ ndax moom leen di jox diw <laughs> ma dugal ci da nga ni dama ni yaa ngi tooñ maam Ndiaye ndax moo leen di jox diw yi mi di xale dañoo maam Ndiaye di dañ koo ñimee waaw koo ñimee bu ko defee bu ñu demee seeti maam Ndiaye mu jël leen rocc leen ban mel ni tarkal la coono ba lool nga def nag sa rob bu rek gàtt rek noir war a mën a felaale dem seeti xacha ah non bul ñu xasaa seeti di keneen rek. dégg nga la seeti rek te joolaa ko ndax ci nga bokk. non man dama jóge dama jóge Makka dama jóge Makka yàggul dara man moom moom moom ma kenn seet. waaw kay léegi nag Modja euh, dafa doon lu lu lu spécial góor nekk ak jigéen en relation nga jàpp tey relation bu fekkee ni célibataire la lan mooy base bi ci ku jigéen ki. xanaa. bu dee célibataire bu dee célibataire bu sëyagul. Hmm. ni ñuy trouver léegi mbëggeel daal man bëgguma ko. Hmm. bu dee célibataire nga sëyoo góo waaw respect sa bopp te def aja kumbataa ko mujj keppal. ah waaw. bu dee célibataire da nga ko war kepp daal. waaw li yàqu ci jigéen la ne. dëgg góor sax am na nu muy saax saaxee day fidd bu amee jabar mënoon naa rek lay jàppoo. ah maa la ko wax ak ma koo mënoon waaye léegi mënatoo te fekk yow sa carrière jeex na te xale nga léegi am nga soxna. mënoon naa ko rek wala nga def te la nga man fatu ji ñu lay jéppee ka rummee ka woŋ ci biir kër gi te fekk xale bu ndaw nga. kon bu dee célibataire la ko jigéen ki naan ku jigéen ki li yàqu ci yow la ne toogal sa wetu yaay dundu ma seen falantee gi. ku góor ki tamit. ku góor ki tamit gis nga ni jigéen war a téye boppam noonu la wu góor war a téye boppam ndax ñoom ñaar ñëpp a yàqu. booy dañoo jàpp ni ñoom duñ téye seen bopp. dañ koo war a téye nag ndax sidit lañ ñoom ñoo gën a jommi ñëpp ndax jigéen sax mën naa pare defarwaat nekkaat waaw waaye góor moom bàyyi si dem bàyyee mooy raw mburu mënu xooj ci ndox dara dootu ko mën du see dara te na fa di mbéj ko xuj fu da nga ñor di fa te fekk dara du dox. Ah! maa la ko wax. ñu ma may seetaan de. ñooñu laa ci bëgg nan la seetaan te bopp du jigéen kese góor daf koy def. dëgg la parce que moom it day yàqule. Mm-hmm. te si nit yi bàyyi kan moo ko mën a taqalewaat. garab gu ne di nga ko naan. jigéen sax mën naa dem defaruwaat. si waaw si nit yi bàyyi kay. loolu am na si. ah birib dipp yaa ngi ci dëkk bi di dem rëmbeelu di. kon ñiy nii ngay. naa garab ba ba far verte. ñiy suux nii ñu ci bëri di wut doole fekk yaa rien te dama goo fenn xale yi dawatuñu kenn. kaab séeréer xale yi bees yi dawatuñu kenn. saala yaay ndeer dalatu dawatuñ ko yow bu dee góor na yow it dawoo reculé woo nga nekk ca da ngaa war a xam ne yow ëllëg da ngay am soxla te li mu soxla da nga koy jox. dëgg la mais tey jii yow boo yow it boo nekkantee ku la di jox nga ne ko maa ngi nii. bi nga dem ba am soxna ma ni la doo nelaw guddi te jigéen lu mu gën a bañ ci àdduna mooy dem ba yaakaar sa jëkkër ba préparé mu na fa di mbéjaka fudd ngay jooy ci plateau ci biir kaw lal bi di jooy. na la bébé xaaral barki yàlla xaar ba ñëw ci tuwaay plateau bi loolu day wàññi góor. waay ay xaaral ma dem ci toile di ñaan. maa ngi ñëw. Ah, ah, su demee tim plateau sama téléphone ak sonné. nekk nekk ci salle de bi fu na nga ko. naan bébé xaaral ma reer dama xiif. <laughs> wala ñu lay développé waxi ah? problème yi la dina dina dina jeex. Ah? comprendre nga toog di xaar te yow fekk dama góo fenn. Hmm? te bu njëkk xasaa daan na dem ba am 60 ans. di doon góor. non booy léegi góor ñu dem ba 60 ans de. ah 25 ans ni garab fooy demee 60 ans. 60 ans 25 ans. ma bu yow 30 ans bala nga faa yegg. fa non booy léegi balaa 25 ans ñu ngi na tàkk parce que lu tax. Hmm. fomm lañ jiitalee sàmp yi. te loolu baaxul. déedéet te ñun suñu génération la naan wax ni su dee maa bëgg bu ma laaj sama bopp ñun ay seer lañ woon. booy dañ la koy laaj. waaw bu ma laaj sama bopp de bu fekkee da nga maa bëgg. te xool boo leen ko joxul danaa la doon nante. waaw parce que ñun suñuy temps ah, bu njëkk. loolu lañ doon ba tax yéen pour ngeen gis ñu il faut ngeen dem ci xumbal sëgg ci daatu ban traversé di yërndu hmm? pour gis ñu parce que tarkaale jigéen jafe woon na nag tey seeroon na boobu boo xam baane daan na dem ba am 30 ans du xam jigéen ñooñu ñu ngi fonctionné ba tey de. <laughs> léegi ñu wul. ñii ñooy <laughs> ñu bees ñee fonctionné wul <laughs> ay la maa la ko wax. waxtaan wi dina gën a yaatu ndaxte loolu moo jëm ci célibataire yi ndax xam ngeen ni nee naa leen tey yen ñu toog seen kër dingeen ci békk waaye di ngeen ci jële njariñ kon nag góor boo des xale da ngay téye sa bopp laataa ngay am 25 ans amagoo jabar jàpp sa bopp pasar pasaree ko